mbokk internet di ziyaar naa leen ba yéen a ngi am jàmm tey ma amati mbégte ñëwaat ak yéen ci seen émission bu am solo tey nag ma indi leen nettali boo xam ne doy na war te it nekk na njàkkre ci ki nga xamante ne moom moo indi nettaleen bi ci émission nettali nee na moom yàlla dafa def en 2019 la yàlla def mu daal di am permis nee na bi mu amee permis en 2019 nee na mu téye permis bi ba yàlla def en 2020 ñu daal di koy jël mu nekk benn chauffeur particulier maanaam chauffeur boo xam ne day dawalal benn nit nee na nag yàlla def ñu mu ñu daal di koy jël ci foo xam ne ki ko jël kilifa la borom daraja la te it ku siiw a siiw la ci réew mi ñu bëree bëri xam nañ ko fii ci Sénégal nee na bi nga xamee ne waa ji jël na ko mu koy dawalal nee na après waa ji dafa ànd ak moom ba ci papaam daan ne ji kii dama bëgg mu nekk sama chauffeur particulier maanaam dama bëgg mu ñëw sama kër daa di fay féete ma jox ko fa néeg comme ça mun des fa ndax nag man dama yor sama oto bopp mais en même temps aussi dafa am benn oto boo xam ne pour soxna yi la maanaam ku ci bëgg dox sa soxla oto bi dafa lay daal di yóbbu nee na nag bi nga xam ne euh, kilifa gi wax na loolu papaam papaam daal ne amul benn problème daal di koy ñaanal nee na mu daal di dem euh, féete ca kër euh, kilifa gi nee na bi nga xamee ne féete na ci kër kilifa gi wax dëgg fa yàlla ñu respecté ko fa kilifa bi di ko fay lu normal mu nekk fa nekk fa ba yàlla dogal kilifa gi dem a dem ba daal di am eh, ñetti soxna ci diggante bi nee bi kilifa bi amee ñetti soxna nee na oto yi daal di yokk bi nga xamee ne oto yi yokku na nee na kilifa gi daal di koy sant na ko wutalaat yeneen ay chauffeur pour chauffeur yooyu mën a gérer yeneen oto yi nee na nag au début bi muy doog a commencé moom kese moo doon raxas oto yi ñaari oto ya fa nekkoon moo ko doon raxas moo daan def yëpp nee na nag bi nga xamee ne dem na dem ba daal di recruter yeneen chauffeur nee na dem naa dem a dem sax ba moom daanaka defatul dara lépp rek chauffeur yooyu ñoo koy daal di def raxas beek dawal yenn oto yi parfois sax moom li muy liggéey bëreetul ndax kilifa gi dem na daal ba jàppee ko kenn ku bokk ci membre famille daal di ko fay yaatal loxo lu kilifa gi war a lijjanti nee na ci loxoom lay jaar kaay leen ñu naan kafewaay waay bi nga xamee ne nag yàlla def na noonu yeneen chauffeur yi ñëw nañu liggéeyam daal di nay wàññeeku kilifa gi daal lay dawalal lu ci ëpp ëpp ëpp nee na parfois nag kilifa gi du am jot ndax des fois day dem Chine li muy dem Chine dafa bëri torop maanaam li muy toog Sénégal bëriwul moom kilifa gi li muy dem Chine daal dafa bëri. nee na nag am bis ñetteel bi ci boppam daal ni ko dama bëggoon tey bu guddee nga am fooma yóbbu dafa am lu ma fay lijjante nee na mu daal ne d'accord nee na guddi jot ñetteel bi ne ko nañ dem mais bi ko ñetteel bi ne nañ dem nee na ci benn village boo xam ne dafa dend ak dëkk bi ñu dëkk fa la ko ñetteel bi ne fa la jëm nee na ñu daal di dema dema dem ba nga xam ne egg nañu ci village boobu foo xam ne dafa sori torop ruqete àlle nee na ñetteel bi wàcc a régler li muy régler ba pare daal di génnaat bi ñetteel bi génnee daal di duggaat ci oto bi nee bi nga xamee ne ñetteel bi duggaat na ci oto bi nee na ñu avancé tuuti dugg ci àll bi ndax nag foofu mu noo faa dem te duggoo ci àll ndax village bi dafa sori nee bi ñu duggee ci àll bi ba avancé tuuti ba dugg ci àll bi nee na ñetteel bi ne ko est-ce que doo freiné fii nga may ma ma daal di dagg ngeer parce que àll bii dafa bëri ngeer nee na mu daal di d'accord daal di freiné daal di bàyyi ñetteel bi wàcc ci dugg pour di dagg ay ngeer nee na moom mu toog ci oto bi di ko xaar nee na ndaw si dagg-dagg ba mu yàgg daal di wàññeeku ne ko jot naa am as tuut nañ dem nee na nag bi ndaw si yéegee ci oto bi ba muy dugal premier rek ba commencé avance tuuti ne na ndaw si ne ko taxawal nee na mu daal di taxaw nee na mu ne ndaw si lan moo xew mbaa jàmm nee na ci la ko ndaw si ne man bu dee dëgg rek moo neex yàlla fag ma yóbbu woon ma dem fa bay wàññeeku nii wutiwuma fa woon dara dara dara yow sa wàllu bopp yow laa soxla woon ñu waxtaan nee na mu daal ne ndaw si maa ngi lay déglu nee na ndaw si ni ko man daal su ma sañoon nga daal di sekk ak man li nga xam ne moo di cukkum njaay jóob nee na mu daal ne ndaw si mais lan moo tax may sekk ak yow loolu en ma nekk sa chauffeur sa jëkkër di kilifa ba pare daal di may teg ci place ba pare nga indi ma ba fii uniquement pour di ma wax yooyu nee na ndaw si ne ko man boo gisee ma wax la ko sëñ bi kilifa gi moom yàlla dafa def affaire am yi dafa xaw nooy torop comme dafa nooy torop te man wax dégg fa yàlla xale bu ndaw laa li may satisfaire bëriwul comme nag lim may satisfaire bëriwul ma bëggoon yow sa wàllu bopp nga daal di may satisfaire nee na moom it mu daan ndaw si loolu moom bul ko sax xalaat ndax duma ko def ndax man sa kilifa fi mu ma jëlee ak fi mu ma indi gis naa ko wax dëgg fa yàlla bi ma yàlla booleek moom mu koy liggéeyal ba léegi am naa ci changement bu rëy rëy ndax sama kër ci laa ko tabax nee na jabar ba mu koy takk ci liggéeyam bii la ko amee ba tabax na ci propre këram kon nag mu ne ndaw si moom trahison boobu du ko def kii di kilifa gi nga xam ne depuis 2020 bi ba tey mi ngi ko jël mu koy liggéeyal nee na nag jamono yooyu ci 2020 bi la ba tey nee na ndaw si ne ko ah wax dëgg fa yàlla nag billaahi di nga ma defal li ma bëgg ndax man eh, sëñ bi mën la bëgg te sëñ bi xam nga ne mën la bëgg su ma ko vocalee daa di di yàq sa der yow di nga xat ci kër gi te it dinaa la xatal xatal xatal goo xam ne bu sëriñ bi ci boppam bi nga bi nga naan daf laa bëgg moo la jàppale ba commencé ngaa tabax sa propre kër ba takk sa jabar yooyu yëpp dina yàqu ndax man sëñ bi bëgg na ma bëgg goo xam ne lépp lu ma ko wax rek da koy daa def hmm. ma ne ko ca ñu naan kafe ñu naan kafe nee na mu ne ndaw si bu la neexee nga xatal ma ci kër gi bu la neexee nga yàq sama der ci sëñ bi ba tey mais loolu duma ko def nee na ndaw si daal di ñoddi foofu mu dëgër nee na ndaw si génne xaalis bu bëree bëree bëri daal ne ko am xaalis bi bu ko defee nga daal di sekk man li ma bëgg nee na mu ne ndaw si xanaa déggoo li ma la defuma ko tey defuma ko ëllëg man maa sekkut tëgg yow lii nii parce que loolu trahison la nee na ndaw si ne ko di nga ko defal la doo ko def en tout cas boo ko deful moom xamal na sa nekkin ci kër gi tey lay commencé xat ba ni nga fii bàyyee nee na nag moment bi nga xamante ne mi ngi xëccoog ndaw si di xëccoog ndaw si rek nee na ndaw si daal di activer whatsapp bi pour daal di vocal bi ndax nee na jamono yooyu sëñ bi mi ngi woon tournée nee na ndaw si commencé vocal rek nee na ma daan ne ko garaawul bàyyil bàyyil dinaa ko def nee na ndaw si daal di arrêté vocal bi nee na nag ci noonu lañ daal di summeekoo daal di jàll ci oto bi ci ginnaaw daal di defante li nga xamante ne moo di cukkum jóob nee na nag bi mu cukkum jóobee ndaw si mooy jabaru kilifa gi nga xam ne moo ko jël mu cukkum jóob ko nee na ba xolam sedd nee na nag après ñoom ñaar ñu daal solaat seen yére daal taal oto bi daal kër ga nee na nag bi nga xamee ne egg nañu ci kër gi nee na ndaw si daal di continuer def ko yoonu tool ndax nag sëñ bi ci boppam lim fay nekk bëriwul te sëñ bi ñetti soxna la am te maanaam nekk yam fay nekk daal da leen di partager yi nga xam ne moom la fay nekk ñoom ñetti soxna yi ba soxna si nee na ko moom ki nga xam ne moo di ñetteel bi moom amul satisfaction ba moo tax mu daal di iri chauffeur bi. waa ji nag neena na depuis ndaw si continuer di sekk ak moom loolu di cukkum njaay jóob bi. nee na ma koy def ak moom uniquement ndax ragal mu daal di may jaxasee kilifa gi nee na des fois ndaw si day génn taal otoom dem fu sori nee na bu taalee otoom dem fu sori ndax nee na ndaw si dem na ba mën a dawal parfois day génn taal otoom dem fu sori bu demee fu sori nee na après ndaw si da koy woo téléphone ne ko taalal oto bi ngay dawal nga fekk si ma bërëb sàngam maa ngi foofu nee na bu ko defee moom it mu daldi di taal oto bi muy dawal fekk ñetteel bi fa ñetteel ba taxaw nee na ñoom ñaar ñu defante ko foofu ba mu saf ñu daal di taalaat seeni oto daldi ñibbisi nee na nag boobu fekk na ndaw si amagul woon benn doom mais actuellement ni ndaw si am na ñeenti doom ci kër gi nee na ñeenti doom yooyu nag parfois da ni xool naan est doom yi duñu ay doomam nee na nag ba pare ndaw si yemu ci parfois buy xool ñeenti doom yi ci kër gi naan ñii est-ce que duñu ay doomam nee na ndaw si du ca yem day jékki-jékki des fois bu dee sëñ bi mi ngi fi nee na ndaw si day jékki-jékki daan ne ah, sëñ bi day tàggu jëkkër ji ni ko man dafa am ay soxla yu may dox dakaar comme dafa am ay soxla yu may dox Dakar te mënuma dawal longu voyage léegi waxal sa chauffeur bi mu ñëw yóbbu ma dakaar man ak moom ñu mu yóbbu ma ma am lu may lijjanti foofu nee na nag bu ko waxee jëkkër ji ndeysaan jëkkër ji moom da ko koy daal di nangul ci saasi ndax moom comprendul day jàpp ne jabar ji ay soxlaam lay dox nee na waaye ndekete yoo ndekete yoo bu ñu eggee dakaar bu dawalalee ndaw si ba dakaar otel la ñuy jël ñoom ñaar nee na ndaw si ñu tëdd ca hôtel ba def lu leen neex ba yàlla jàmmal leen nee na ñu daal di taalaat seen oto delluwaate ca dëkk ba ñu jóge ma naan kafe ñëw leen ñu naan kafe de nee na nag wax dëgg fa yàlla affaire bi dafa yàgg mille 2020 ba léegi ba ndaw si am na ñeenti doom te nee na moom ñeenti doom yooyu ku ko laa tegal kaamil mu waat ne moom moo jur doom yi ndax li muy nekk ak ndaw si moo ëpp fuuf li kilifa gi ko jël di nekk ak ndaw si nee na nag sans compter moment yi nga xam ne Dakar la ñuy dem moom ndaw si ndaw si jël hôtel ñu tëdd fa ba yàlla jàmmal leen ndaw si àndaat ak moom ñibbi ko di wone ne dafa amoon soxla bu muy lijjanti Dakar sans compter aussi bu ñu nekkee ci biir dëkk bi ndaw si day génn ba sori woo ko téléphone mu fekk si fa ndaw si ñu nekkee ko ca nekkee ko ca nee na nag actuellement nii dafa tiit li ko tiital mooy nee na àddina bi ku ne gis na ne dafa jeex ba pare te dee yi dañoo gaaw nee na nag wax dëgg fa yàlla ñaanul yàlla dee yóbbaale secret bi ci biir bàmmeelam ba tax na mu bëggoon a wax secret bi ndax nag sonn na nee na bii secret bu bu bu éclaté sëñ bi bu ko yëgee maanaam kilifa gi nga xam ne moo ko engagé bu ko yëgee dina ko mere torop te it famille kilifa gi dinañ génn ci moom nee na moom tamit propre famille dinañ génn ci moom ak soxnaam bi nga xam ne mi ngi sëy ak moom dina génn ci moom te it nee na bu dee dëgg rek a neex yàlla 2020 ak léegi rek li mu réalisé ci liggéey bi kenn xamul nu mu toll ndax nag salaire bu baax bi nga xam ne moom la ko kilifa gi di fay mais fekkee ne nanguwoo lii may def dinaa la xatal ci kër gi te nee na ñetteel bi ni mu ko waxee la amee kilifa gi bëgg na ko bëggeel goo xam ne maanaam mooy seytaaneem lu mu ko wax loolu lay def te it nee na moom jamono yooyu parewuloon pour perte liggéey bi ndax nag liggéey bi mu ngi ci doon gis boppam bu baax a baax ci la tabaxee këram ci la takkee jabaram ci la defee yenn réalisation yu bëri yum ci réaliser ci salaire boobu nga xam ne moom la ko sëñ bi di fay nee na ba tax na bi ko ndaw si menacé mu daal di mujj accepter sekk ak ndaw si ba actuellement ni moom day xool ñeenti doom yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi mu naan ñi est-ce que duñu samay doom wala boog am na ci ñoo xam ne samay doom lañu ndax nee na parfois li ñaan deret du bu xoolee xale yi rek ñii ay doomam lañu nee nag boo gisee mu indi ko émission nettali dafa jaaxle dee yi dafa gaaw te nee na moom bëggul dee yóbbaale lii faaw mu exposé ko te it nee na mu ngi xalaat bu affaire bi feeñee est-ce que tamit kër sëñ bi duñ ko mere papaam bi nga xam ne moo ko boole woon ak sëñ bi est-ce que du ko mere ba tax na mu daal di koy def njàkkare mu indi ko émission nettali pour mbokk internet di daal di koy mën a jàppale ci solution ndax nee na wax dëgg fa yàlla des fois day xalaat daal bëggul loolu dafa bëgg daal affaire bi mu daal di koy wax ba kenn ku ne xam lu ci mënti xew daal mu xew ci donte xam na ne moom dina ci am ay résultat yoo xam ne dina jëm ci moom maanaam tey kilifa goog nga xam ne da koo wegoon jox ko léppam ak léppam mun na ko mere ba ci ay waajuram sax mun nañ ko mere ba ci soxnaam bi mu nekkal mun na ko mere ba tax na mu ne na koy indi émission nettali pour ngeen jàppale ko ci solution ay ca mi ngi noonu waa ji daal mën a jàppale góor ñi ngeen baal ma ñenn ñi da ngeen a ñame takk ay ñeenti jabar juróomi jabar ñetti jabar te fekk yàlla yàlla xam doy na nit yow yaa gën a xam sa bopp su fekkee ne xam nga ne yow sa kàttan dafa néew yemal ci sa benn jabar wala sa ñaari jabar mais boo duggee ci ay ñetti jabar ah nga dugg ci xale bu ndaw parfois je ñenn ñi ñooy pousser seen jabar yi à ce ñuy def na ko sudul noonu donte nag loolu moom du région pour soxna si tamit di di di njaaloo parce que tamit soo duggee ci sëy nga xam ne kii satisfaire la am nga droit nga ñaan baat nga dem xooli ku la satisfaire mais comme ni ma koy waxee rek o Sénégal léegi dundu luxe maanaam ndaw si mi ngi dundu luxe mu ngi dawal oto bu tooy mu ngi nekk ci kër kilifa gu mag ay moroomam ñeeko waaw sa kaat-kaat bi sa nii sa cheveux yu gudd yi ngay teeg sa sañse yu baax yi sa or yi ngay takk te fekk na ndeysaan am na lu manqué lu manqué loolu bëggul ay xaritam xam ko bëggul ay jege ñaalem xam ko ndax mi ngi leen di jaay affaire léegi mu dem di ko mottalee ci chauffeur bi léegi nag mu nekk loo xamante ne neexul yàlla ah mu nekk lu ñaaw ñaaw te Sénégal malheureusement loolu dafee bari moo tax gis nga jigéen ñi delloo si leen seen xel bàyyi leen seen moroomu jigéen ñi di leen góondi ngeen yaakaar ne ñoom ñoo ci ne billaahi bu ñu leen waxoon li ñuy dund xam ngeen ndaw si li muy dund nii maara deytaale moom ndeysaan leer ma ne am na ay xaritam yu ko ñee naan diw sëyam ba ñetteel la de waaye namul dara otoom ba muy dawal la muy takk jëkkër ji day dem ay tournée Europe fii la xari jaar fekkete yoo ndekete yoo am na lu garaaw lu làqatu ci ginnaaw mooy maanaam jëkkër ja satisfeeru ko ba mu ngay dem di ko wuti ca chauffeur ba ba chauffeur bi tey toog ne dee yi dafa gaaw buggu la génn àddina te secret bi waxu ko léegi nag lii mu nekk bomb boo xam ne bu explosé tey kër ga dina tas ah xale yooyu laa ci yërëm xale yooyu nga xam ne tey yii chauffeur baa ngi laam laame moo jur ak jurul bu ko defee nag ngeen yàq àddina xale yi dee leen xool doxi leen yi man de ma am jëkkër juy taaba taaba te mu satisfaire ma ma satisfaire ko moo gën jëkkër joo xamante ne alal ju ne gaañ ba pare yaa ngi génn ci biti di def na ko sudul noonu bu bomb bi explosé ndeysaan li ma ci metti rek mooy xale yi ñooy fay les kase ay waay delloo si leen xeli alal du dara billaahi oto nit mun nga koo am sax te fekk sa jëkkër nekkul milliardaire ndax lépp rek ay wërsëg la loo xam ne yàlla moo koy bind ci jëwu doomu aadama soo ko waree am même boo dee taaba taaba da ngay xëy di dawal oto bëri nañu fii dawal oto ay taaba taabakat lañu mais yàlla moo ne dañuy dawal oto mais nag malheureusement ndeysaan duñu xalaatee noonu ay ca mi ngi noonu waa ji daal lii moo nekk problème am muy saaku ngeen dimbali ko ci bu baax a baax a baax waaye it may wax góor ñi nga xam ne dañoo nooyle nañu yem ci benn jabar ndax boo yemee ci benn jabar sa sutura du xaaweeku kooku au moins di nga ko satisfaire mais boo nooylee ba pare dem takk deux trois nga satisfaire kii doo satisfaire kële ki nga xam ne moom xale la moom mu ne mu yaakaar ne dem wuti ku koy cukkum njaay mooy solution bi alors que bàkkaar yi dafay daal di gën a bëri ay ca mi ngi yàlla daal nañu yàlla dolli sutura ci barke Seydina Muhammad te ñuy ban di jiital alal fàtte ne loolu ay détail la c'est vrai nag neex na ndax soo ko amee nit ñi dañ lay respecté nit ñi moom nga am alal la mooy tax ñu respecté la mais nag parfois sa dignité na la gënal lépp que nit ñi di la topp ndax ay weccate yu ñàkk fayda ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a baax jaajëfal suñu àndandoo bii di waalo courant soigne ci seen huile bu am solo boobu di huile Rokia huile Rokia nee naa leen anti cat la rab ak bët ak ñi nga xamante ne dañoo am faru rab nga xam ne ndeysaan pour ñu am jëkkër rek problème la dañuy dañuy xaar ba sonn wala lu ñëw daal di tas seen yaakaar bu ngeen jëlee lii di huile Rokia di ngeen yàlla mun na leen a dimbali ngeen daal di faru rab ku bëgg ci ibil rokiya bi nag da ngay woote ci 77 999 76 96 wala 76 374 78 78 bu ko defee nga daal di jokkoog wàllu courant soin ci ibil rokiya bu am solo boobu di jaajëfal bu baax a baax kana satula koreyen moo nekkoon ci caméra nuy bu baax a baax suñu DGC Latir nuy équipe technique gu Thiès Info yëpp di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo safoo émission nettali di ko seetaan ku ci mel ni Bekkaay fële ca Angleterre maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax ak sama xarit borom Indeetina maa ngi lay nuyu bu baax a baax depuis la France maa ngi lay ziar bu baax a baax di leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneeni nettali d'ici la portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info ñu daal di koy terminer. ak suñu café Silaasi